kenn mu manifester benn candidat mënuñu ko poursuivre ci propos yu muy tenir en campagne électorale bu boobaa ñëpp ñu dégg dëgg je disais que manifestation grand parti bu keroog bi dañ ko tere donc loolu mënut nekk à partir de samedi tout sera autorisé caravane meeting rassemblement communication et tout kon ñoom li ñuy dérouler nii assemblée nationale je crois que du mën a am impact ci processus bi nga xam ne chaque jour muy jege son terme chaque jour ñuy jege le jour du scrutin donc li ñu war a def ñu koy def administration bi c'est-à-dire l'acheminement du matériel le tirage du bulletin et tout ça donc électeurs yi aussi ma di ñaax ñu dem jëli seen carte pour les primo-votants yi nga xam ne retiré guñu seen carte ci préfecture yi nañ bañ a xaar au dernier moment nañu dem jëli seen document de vote bu fekkee ni bëgg nañu si réew muy changé donc de toute façon ci changement lañu jëm te lii yëpp man dama ci am euh, mbégte ak xel bu dal tey jii Benno Bokk Yaakaar bu ñu demee bay xeex seen candidat bay créer commission d'enquête parlementaire di ko waajal mais loolu mooy ñoom non seulement daanu nañu mais ñu ngi rey seen bopp léegi léegi Clédor foofu laa la bëggoon laajee man tamit parce que tamit hmm. euh, euh, man li ma mënta comprendre mooy ñu ne waa PDS ñoom ñoo euh, dugal requête boobu te waa Benno Bokk Yaakaar jàppale leen ci hmm. te ñoom ma en fait li ma jaaxal mooy sax waa ñoom ñoo doon wax ne mais Benno Bokk Yaakaar ñoo ñoo ñoo ñoo gantal seen candidat ñoom waa PDS loolu la ñu doon wax hmm. ciblé ci Amadou Ba tey ñu ñëwaat benn ñu ne waa benn moo leen di jàppale mais à quel jeu joue-t-il voilà à quel jeu joue-t-il waaw léegi loolu yëpp nag laay wax ni c'est dirigé contre Amadou Ba Amadou Ba gis ngeen euh, Karim def benn tweet mi hmm. euh, moom moo nekk derrière son élimination léegi leer na ñëpp ni benn Bokk Yaakaar bëgguñu Amadou Ba hmm. commission d'enquête parlementaire ñaata lañ fi déposé yoo xam ne demul fenn ban commission d'enquête parlementaire ngeen gis mu gaaw gaawaay bi te jógewul sax ci nguur gi mu ngi jóge ci PDS. ba pare Clédor. oui. li ma seetlu mooy bi Karim yëkkatee tuuma yooyu dégguma kenn ci Benno mu défendre seen candidat Amadou Ba ça quand même c'est c'est inquiétant. non non seulement défendre ko mais seeni député Benno dañu appuyer dynamique bu procédure euh, PDS. Mm-hmm. au niveau de l'Assemblée nationale. loolu c'est c'est ça veut dire mm. ça donne raison. à ceux qui disent que France m'ont imposé à Amadouba Macky Sall. C'est le candidat de la France. léegi pourquoi Macky nangu woon ko ñëw ba fii bëgg a wëlbatiku bu dee noonu la demee. mais faiblesse. ah nommé nañ ko xaw ma représentant euh, du de xaw ma lan de Paris. <laughs> Euh, pour la planète et les peuples. envoyé spécial ah envoyé spécial waaw. donc euh, ci ci ci ci lañ ko jëlee ci. ambition yi mu amoon donc euh, Amadou Ba convoqué nañ ko France wala boog dem na visite France engagement yi ñu fa jël moom moo ko xam donc euh, français ñu ngi communiqué ci probabilité que nguur gi tàbbi euh, ci loxo Amadou Ba donc Amadou aussi mu ngi def lu bi yëngu mu ngi mu ngi conquérir ñu bëri donc da ngeen propos polémique yu Cheikh Niass euh, def ni moom moo fi gën a xam état moo fi gën a xam nga diw diw ko bër donc ñu bër fi mu nekk nii euh, ñu ngi ñu ngi seetaan Amadou Ba di tisser sa toile dem seeti na premier ministre Abdoul mbay xam nga mu ngi démarché ay nit donc mu ngi jéem a yaatal xawam parce que xam na ni moom c'est pas un candidat du report moom xam na ni bu ñu dàqee élection yi tuuti rek mooy dootul candidat APR <laughs> dootul candidat APR Boun Abdallah aussi bi mu ñëwee Walfadjri gis ngeen posture mu am par rapport à Amadou Ba donc moom il ne bénéficie pas du soutien de benn Bokk Yaakaar c'est quelqu'un qu'on nous a imposé moo tax ni ñi di dem déplorer l'immixtion de la France dans nos affaires politiques parce que même le décret de Karim bi nga xam ne dañ ko génne au dernier moment ça a été considéré comme un coup fait exprès euh, pour ne pas nuire à Amadou Ba donc loolu moo tax riposte bi <laughs> di organiser wu parce que ñoom dañu yàq seen plan yëpp non seulement Bassirou Diomaye est passé hmm. mais Karim Wade est retenu donc ça veut dire que ñoom il roulait certainement pour Karim Wade parce que jox nañ ko ay député seen seen i député pour ñu jàppale ko pour ñu jàppale PDS ci comme euh, commission d'enquête bu bëgg a taxawal mm-hmm. et c'est allé tambour battant tey dañ ci posé acte suba nañ ci posé acte donc ça va avancer très vite d'ici mercredi dañ euh, xam fu wàllu du ak i gëtam mm-hmm. donc euh, Amadou Ba c'est pas le candidat de Macky Sall c'est pas le candidat de Benno Bokk Yaakaar moom il le sait si bien que mu ngi nettoyer entourage des membres de Benno Bokk Yaakaar et de l'APR ñi nga xam ne il leur fait pas confiance. léegi loolu lan la ko mën a jural Clédor de façon de façon comme impact jëmee ci ci campagne parce que gis nañ tamit ñoom euh, maa ngi doon lire ci week bi ni ñu doon tërale li nga xam ne moo di seen euh, bureau jëmee ci campagne bi euh, loolu lan la ko mën a indil mu écarter ñenn ñi frustration yi tàmbali te yeggaguñu ci yëf yi. non pëccaxoo rek ak euh, doole bu wàññeeku parce que moom mhm. dañ ko infiltrer au sommet Macky Macky Macky dafa jël euh, Farba Ngom teg ko ci wetam moom il est il est surveillé par Farba Ngom xaw ma ndax loolu seetlu ngeen comme déet. loolu laa la bëgg laaj parce que ba ñoo ngi naan am na ñoo xam ne dañ ko taf ca kaw daanaka sax euh, mënatul amul yenn marge de de de par rapport à un vrai candidat. waaw mais loolu la fi mu nekk nii nag chaîne yooyu la nekk di di rompre yooyu la nekk di rompre waaw mu ngi commencé di écarter benn par benn ndànk-ndànk fi mu nekk nii la crise entre ñoom c'est une crise ouverte bu njëkk c'était une crise feutrée dañ doon maslaa ka wuuree ka naxante mais léegi nag fàng la crise ouverte la moo tax muy commencé di écarter am na ay ex soutien yoo xam ne fu mu nekk ni moom rek la ñuy bañ a dégg ah bon ah oui <laughs> am na ay ex soutien yoo xam ne dañ ko mere lool hmm. parce que daf leen écarter indi ay nit ñu bees teg seen kaw. mais est-ce que du bees bees boobu tey moo war a nekk force Amadou Ba parce que tamit quoi qu'on puisse dire am na ñoo xam ne ñoo ngi ci bennoo yàgg nañ ci nguur gi de telle façon que sénégalais yu bari amatuñu envie gis seen xar kanam aussi. est-ce que mais mais mais xam nga tey jii man su ma nekkee homme politique. mu ñëw jàppale Amadou Ba mu si ay million ay millions rassembler ay nit wax ci moom lu nekk jël sama ay millions investir ko ci sama base pour jàppale ko ma jékki-jékki mënutuma ko jot sax téléphone mu jël keneen teg sama kaw mais kooku da koy xeex sax wala nga yéene ko yéene ko defet parce que loolu genre war nga koy jàppe mhm. da metti mhm. donc loolu peut-être Amadou Ba en le faisant il se protège mhm. mais il se crée des ennemis surtout que ñoo xam ne xam nga leen démb ak bërki démb ànd ak ñoom te dañ la jege des ñu ñu jege la ngeen am sax ay relations d'amitié des amis que la politique sépare mais loolu c'est c'est ça fait te loolu nag politicien boo gis ak lu mu tuuti tuuti am na pexe mm-hmm. ak lu pexem tuuti tuuti pexe la kon l'avoir avec soi moo gën l'avoir contre soi mm-hmm. politique maslaa la ak rafetal addition voilà yow mën nga am koo xam ne xëy na peut-être wóolu ko mais comme xas na dugg ba pare doo ko écarter da nga koy gérer mais écarter nit moom mooy se faire des ennemis te ku jëm ci campagne électorale waru doxalee noonu kooku ça veut dire que Amadou euh, Ba c'est pas un politicien. est-ce que du mouvement de panique aussi Clédor. Euh, xam naa ni daal moom du ko am fit te ragal kenn du ko dénk réew loolu c'est très dangereux parce que maa ngi fàttaliku fii ay escrocs doon nañ ko fi chantage par voie de presse. di ko suturé xaalis amoon naa ci kenn koo xam ne sax euh, dañ ko utiliser woon mu leen doon bindal ba bokkoon ci ñuy defeere woon mm-hmm. danga ko doon assister mais boo xoolee déroulé procès boobu danga xam ni waa ji ñemewul parce que dañ ko doon chantage muy joxe xaalis. Mm-hmm. il avait cédé. il avait cédé. donc ku mel noonu bon est-ce que mën nañ ko dénk réew. koo xam ne rek ñemewoo sax ñu bind lu négatif ci yow ba ci joxe xaalis. te réew mu am pétrole am gaz. waaw ñu ne ak jamaa wóoru ma. non wóor na wóor na man kay maa la koy consommer man je crois que loolu. naa ci def sotti mais contexte bi rek moo ma jaaxal contexte électoral bi moo ma jaaxal. yow ba campagne bi rek. waaw bàyyi ba <laughs> wax jox jamaa mi.